et dama ci bëgg a wax rek lu tuuti te barewul en réalité euh, di wax nañ ne euh, l'article 27 dafa ne le mandat du président de la République est de cinq ans nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs n'est-ce pas alors fii euh, day day ci wàllu droit dañu ne oubi lex non distinguit nec nos non distinguere debemus là où la loi ne distingue pas mm-hmm. il n'y a pas lieu de distinguer parce que loi bi dafa ne euh, certes euh, le mandat est de cinq ans léegi su fekkente ne da nga ne euh, nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs nga sous-entendre ne dañu ne nul ne peut exercer plus de deux mandats de cinq ans yow yaa ko ci dugal mais loi bi dugalu ko ci donc foofu déjà c'est un c'est un premier point en plus le conseil constitutionnel a été saisi bi ñu koy naan lan mooy sa xalaat ci wàllu mandat bi dañ ko ne ci diiru ci diiru mandat bi lañ ko wax mu tontu mais kenn laaju ko. ci nombre de mandat yi. maanaam ci limu mandat yi. mais ci ci diiru mandat bi mu ne diiru mandat bi euh, mënuñu wàññi mandat président parce que bu fekkente ne da ngay wàññi walla di yokk loolu dafay andi jeexi jaaxa day bouleverser li mu li ñu tuddee la sécurité juridique. mais conseil ci diiru mandat bi lañ ko saisir même booy xool euh, euh, considérant bi mu wax titre kii rubrique bi nga xam ne fa la nekk. dañu bind de de la durée mm. du mandat du président de la République de la durée du mandat du président de la République donc président de la République mënuñu ko saisir sur la durée ngeen di extrapoler sur le nombre mm. alors que la question du nombre est réglée depuis la constitution de deux constitution sur la base de laquelle le président Sall a été élu en 2012 donc loolu leer na deuxième chose c'est que bu ñu nee bu ñu nee mandat dañu naan euh, dañu war a poser wu la question de savoir qu'est-ce qu'un mandat un mandat mooy sañ-sañ bu ñu jox nit muy euh, wax di jëf ci turu askan wi ci ab diir sañ-sañ boobu mën na nekk juróom-ñaari at mën na nekk ñeenti at mën na nekk juróomi at aux États-Unis ñeenti at la euh, Brésil ñeenti at la euh, République démocratique du Congo juróom-ñaari at la Sénégal juróomi at donc l'absence disposition transitoire foofu lay ñëw non foofu lay ñëw c'est-à-dire disposition transitoire bi bu fekkente ne dañ ko jàpp ci diir bi ci diir bi ci durée bi la disposition transitoire est superfétatoire hmm. pourquoi elle est superfétatoire parce que conseil constitutionnel nee na ba noppi mandat bi buñ ko wàññee cinq ans disposition boobu kenn du ko appliquer président Macky Sall donc soxlaatul ñuy defaat disposition transitoire di wax ne ça ne s'applique pas au président ça n'a pas de sens donc sur la durée la disposition. mais ñu amul non j'arrive sur la durée sur la durée la disposition transitoire est superfétatoire mais elle est encore plus superfétatoire encore sur le nombre parce que le conseil kenn saisiru ko kenn laaju ko. ci limitation nombre loolu mm. c'est réglé depuis deux 2001 mm. donc ci li ñu la laajul soxlawul nga ci am disposition transitoire c'est un non-sens donc euh, foofu la la euh, par rapport léegi ak euh, ñu naan ay second quinquennal ça aussi ça n'a pas de sens pourquoi ça n'a pas de sens parce que dafay mel ni tout mandat est un quinquennat et tout tout est non dafay mel ni tout un qu'un Et en dehors du quinquennat, il, il ne saurait y avoir de mandat. Donc on établit une identité et une confusion parfaite entre mandat et quinquennat, ce qui n'a pas de sens. Parce que pour la bonne et simple raison que le, président le Conseil a accepté que le président pouvait poursuivre son mandat de 7 ans. Pour la bonne et simple raison que la Constitution prévoyait déjà Dans un mandat de 7 ans. donc mandat mën na nekk 5 ans mën na nekk 5 ans mën na nekk 4 ans sañ-sañ la ñu tuddee mandat sañ-sañu wax ak jëf ci turu askan wi léegi su fekkente ne j'arrive su fekkente ne léegi euh, da nga ne premier mandat président Macky Sall 2012 2019 euh, du mandat loolu du lu garaaw a garaaw lay nekk parce que bu dul mandat ça veut dire que kon président bi dafa doxal nguur gi te amul ci sañ-sañ c'est-à-dire boo doxalee nguur gi te amoo ci sañ-sañ tu as exercé un pouvoir de fait c'est-à-dire sans titre juridique valide et valable dans cette condition ça veut dire que toutes les lois promulguées son nulles et non avenues loi yi nga signe yëpp dafay neen c'est-à-dire kenn du wax sax ni c'est illégal maanaam dëppoowul ak yoon parce que balaa muy dëppook yoon day fekk nga am compétence bi mais ku amul compétence bu jëlee dogal dañu jàpp ne dogal boobu dañu jàpp ne mosul am moom la ñuy wax la théorie des actes inexistants donc dañu wax ne kon toutes les lois promulguées son nulles et non avenues tous les décrets yi mu jël c'est nul et non avenu tous les décrets nommant à tous les emplois civils et militaires sont nuls et non avenus et tous les actes juridiques pris par toutes ces autorités civiles et militaires sont nuls et non avenus donc vous voyez bien le cataclysme juridique que cela crée dans euh, dans la dans la nation donc c'est extrêmement grave beneen bi moo di léegi su fekkente ne da nga jël rek sur le plan linguistique maanaam euh, euh, euh, constitution bi ci tubaab lañ ko lañ ko lañ ko tëggee ñu ne nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs nul c'est un pronom impersonnel ñu ne léegi jëlal nul nga remplacer ko par celui qui se trouve dans la situation juridique visée mu jox la Macky Sall ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs je crois que ça on ne peut pas être alors, plus clair alors Maurice euh, il paraîtrait hein euh, je prends euh, des précautions Euh, que le président aurait consulté le Conseil constitutionnel avant euh, de se positionner euh, par rapport à cette histoire de, de, de mandat. Et il y a des juristes qui soutiennent que le Conseil constitutionnel ne va pas, euh, ne, ne, ne, va pas euh, créer un précédent. Le Conseil constitutionnel va se conformer à la délibération de 2012 euh, concernant la validité du mandat, du, du la, la, le droit à la candidature Euh, pour ah de la République. loolu loolu euh, situation 2012 ci Abdoulaye Wade ak situation bi ñaar yu bokkul la 2000 diggante ab euh, Abdoulaye Wade bi ñu koy fal dañ ko fay fal ci constitution boo xam ne limité wu loon mandat yi ci diggante bi mu am constitution bu bees donc loolu beneen mbir la président Macky Sall bi ñu koy fal 2012. ñu ngi ko fal ci base constitution boo xam ne 2001 lañ ko tëral par référendum te constitution boobu daf doon déjà tënk li mu mandat yi ci ñaar donc bu ñu ko tënkee ci ñaar président Macky Sall ci loolu lañ ko falee en 2012. Euh, non je vous, vous allez répondre après le con euh, ci loolu lañ ko fal en 2012 ci diggante bi avec la réforme de 2016 eh bien ce n'est pas une nouvelle constitution mais c'est une réforme c'est-à-dire que réforme bi laalul encore une fois euh, le, le, le nombre de mandats qui est fixé depuis mais la durée du mandat du la mandat. et puis aussi par rapport à la position du conseil constitutionnel dañu ne en droit interpretatio quaesat s'il, s'il, s'il vous in plaît. claris interpretatio quaesat in claris on n'interprète pas ce qui est clair ah lu ñu ah. fàng kenn du ko jeex lu leer nañ kenn du ko lux mbóot conseil constitutionnel ci boppam constitution bi daf ko tënk ndax euh, bu yoon waxee ne euh, bu mu di jotee ngeen añ conseil constitutionnel amul sañ-sañ ne bu mi di jotee ngeen añ mi ngi tekki ne bu mi di jotee ngeen dal jël seen mbàjj sangu tëdd nelaw donc euh, par rapport ak li Ousmane Sonko wax. Ah, xaaral moom mu rebondir ci ñu doog a dem ci Ousmane Sonko wax. bu ñuy fal Abdoulaye Wade en 2000 constitution mhm. koy fal. il était bien par le parti socialiste. bàyyi ko rek yow xam nga xam nga li ngay wax. non elle n'existe plus Serigne bi dans la campagne électorale parmi les vœux affichés par les Sénégalais. c'était l'intangibilité euh, de la durée et du nombre de mandats moo tax Ablaye Wade matérialiser ko avec la constitution de 2001 non 98 comme ni wax na ko sànq 98 dafa am changement constitution bu amoon pas changement constitution mais disposition révision bu amoon bu doon limiter mandat 98 donc Abdoulaye bu muy fal en 2000. non non on a levé il faut vous renseigner. xamoo xamoo loolu non non xamoo ci dara non non. et à l'époque même. en 98 et à l'époque toute l'opposition sénégalaise en en 98 il y a eu deux réformes. la première réforme c'était sur le quart bloquant. maanaam bu ñu la falee même boo amee majorité euh, majorité bi nga am dafa war a méngoo ak euh, bu ñu xaajee les électeurs inscrits ñeenti pàcc. war nga motale benn pàcc bi loolu moo nekkoon le quart bloquant léegi parti socialiste en 98 dafa sotteeloon le quart bloquant beneen réforme bi mu sotteeloon aussi c'était la réforme sur la limitation des mandats à deux ça c'était une réforme de 98 et à l'époque l'opposition était allée jusqu'en France pour manifester et le président Diouf avait dit à l'époque qu'on ne devait pas porter les affaires du Sénégal en France, en France.